ministre, euh, vous avez fait à l'endroit de certains responsables euh, la, de la mouvance présidentielle. Le, le message, C'est un message de solidarité et un message de remerciement. Et nous voulions également solliciter les prières de l'ensemble des responsables. Le président Macky Sall nous a instru instruit de, que tous les Thiessois, tous les responsables de la mouvance présidentielle se réunissent et qu'on fasse bloc. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait ces visites de courtoisie, d'autant que, par ailleurs, c'est des gens avec qui nous avions des relations particulières. Et nous remercions le Tout-Puissant et nous remercions également le président Macky Sall de nous avoir fait confiance et par-delà notre humble personne, l'ensemble des Tchessois et l'ensemble des responsables du Benobok Yakar. Et justement, c'est donc euh, uniquement dans ce cadre que nous avons initié ce genre de rencontre et que nous allons, nous espérons pouvoir continuer jusqu'à ce qu'on puisse rencontrer l'ensemble des responsables et que nous tous, nous soyons unis et que nous travaillons dans l'unité, dans la fraternité, pour le meilleur du Benno Bokk Yakaar et aujourd'hui plus largement que le Benno Bokk Yakaar que nous travaillons dans le cadre de la mouvance présidentielle parce qu'il y a une nouvelle donne politique qui fait que notre action dépasse le Benno Bokk Yaakaar c'est une action dans le cadre de la mouvance présidentielle qui fait que même dans ce même cadre nous irons voir nos parents de Rewmi nous irons voir également les restes des responsables de Benno Bokk Yaakaar pour que afin que nul n'ignore qu'il y a une nouvelle donne politique. Mais justement des responsables vous ont à bras puisque vous n'êtes pas en mm-hmm. euh, vous motive? Cela me motive encore une fois parce que cela montre le, la grande générosité, la grande empathie que nous avons retrouvée au niveau de ces responsables, parce qu'ils nous ont montré une grande générosité en recevant avec leurs responsables et le staff. Et je pense que cela est pour nous une motivation supplémentaire pour travailler encore davantage afin que le, la mouvance présidentielle, pour ne pas dire le Ben Bokayar, que la mouvance présidentielle ait une plus grande prégnance au niveau de population de Thiès. Thiès a besoin que l'on travaille ensemble, qu'on soit unis et qu'on puisse demain relever les grands défis qui sont les défis qui nous interpellent. Et ces défis-là, j'espère qu'ensemble, nous pouvons les relever au mieux. Monsieur le ministre, quatre semaines après votre prise de fonction, la feuille de route vous a été dressée par le Monsieur le Président de la République. Euh, J'imagine que euh, la, la, tâche est, est, immense, mais elle est à portée de main. La tâche est immense. Et comme j'ai l'habitude de le dire, euh, le, autant le défi est grand, autant le mérite le sera. Ce n'est pas aisé, mais avec l'appui de tous. Parce que c'est le seul, l'un des rares ministère qui soit aussi transversal. C'est un ministère qui touche l'ensemble des populations. 97% des entreprises en dehors de l'agriculture sont dans l'informel et dans l'artisanat. L'artisanat et l'informel donc constituent les mamelles qui au Sénégal de pouvoir relever les défis qui nous interpellent. Le travail de la jeunesse, mais également le développement économique. Et quand dans le PSE, il est dit que la transformation de l'économie, institutionnelle de l'économie, en sachant que l'informel et l'artisanat constituent au moins 60 à 70% de l'économie sénégalaise. Donc c'est un des piliers du PSE que la transformation institutionnelle du secteur informel. Et ce secteur informel, donc, nous tendons la main afin qu'on puisse travailler ensemble pour relever les défis qui nous interpellent. Merci. Merci. ci ah, euh, la république say naataango euh, ñoo xam ne yéen a euh, sant yàlla di sant le président de la république bi nga xamante ne moo ñu jox confiance. wóoluñu ba jox ñu cër bii nga xamante ne mooy suñu cër tey waaye cër bii ñun war nañoo xam ne que cër bii suñu cër ñun kese par delà not personne c'est-à-dire suñu weesoo suñu jëmm mbir mi dafay laal ñeneen ñoo xamante ne ñoo bokk mbir mi tey moom mooy tey ñi nga xamante ne ñoo bokk suñu benn bokk yaakaar waaye tey su weesu nañu loolu benn bokk yaakaar ndax président Macky Sall dafa indi mouvance présidentielle maanaam jëmu gu bees yoo xamante ne tey dañ ko am président ne daf ñoo ñaax ne ñu ànd leen nekk benn te ànd nekk benn nag mënuñ koo def lu dul lu ñuy nempo seetante di waxtaan di weccante xalaat jéego yooyu la ñu teg tey bay seeti yenn ci sunu ay naataangoo ci politique bi incha allahu dinañ continuer loolu ba ku nga xamante ne yaa ngi ci bokk dinañ la dem ci yow tàllal la loxo waxtaan ak yow ne la ñu bokk ndey bokk baay liggéey ni nga xam ne noonu la ko président bëggee. keroog bi dogal bi daanu gis nañu fi kenn xaju fi woon waa Thiès ñëw wane seen yéene tey ñi nga seeti aussi lu nu mel moom la la firndeel ndax loolu oh, day dalal xel. waaw waaw loolu dafa dalal xel waaye yemul ci dalal xel daf maa ñaax maanaam day tax tey ñu gën a góorgóorlu ndax tey soo àndeek sa ay mbokk say nawle te fa nga toog ñoom ñëpp. ku ci nekk war faa mënoon a toog tey ñoo ñu ànd ak yow daal dina de rafetlu nañ ko yow loolu lu def rek mooy sant yàlla sant leen ñoom it ci seen xol bu rafet man lii nga xamante ne yàlla dafa def président teg ko ci suñu loxo ñu ko koy sant encore man dama ci santaat tam Cees waay ndax ba mu amee ba léegi gis naa ne mbooleem Cees ñëpp dañu àndandoo yéene ma ko yéene bu rafet boobu nga xam ne Cees waay am nañ ko ci man moo tax ñun tamit muy lu ñu gën a ñaax pour ñu gën a góorgóorlu ba lii nga xam ne mooy yaakaar bi te yaakaar bi nag dafa yaatu yaakaar boobu yàlla bugg yaakaar bi tas ñu di tàllal suñu loxo kilifa diine yi di tàllal suñu loxo kilifa aada yi ak ñëpp koo xamante ne war ngaa mën a ñaanal nga ñaanal ñu ba lii nga xamante ne président jox nañu ko muy lu am solo ñun ñu mën koo liggéey ba moom président la république ñu dem ba weesu li mu njott ci mu ñu mën ko am ci ndam. orientation yi ci ban la. maanaam liggéey bi nag dafa yaatu tey jii dafa fekk suñu xoolee ci artisanat dafa jël soo ko nattee soo génnee ñi nga xam ne dañuy bay artisanat kese dina jël li nga xamante ne juróom benn fukk ci téeméer yu nekk ñi ngi ci biir artisanat mais soo jëlee informel bi moom ci boppam nag. maanaam artisanat ci biir informel la ne di nga xal ne soo génnee baykat yi nga génne baykat yi li nga xamante ne ñooy entreprise yi nga xamante ne ñooy Sénégal téeméeri entreprise bu nekk juróom-ñaar fukk juróom-ñeenti fukk ak ñaar yépp ñu ngi ci informel bi soo ci génnee baykat yi kon muy wane ne kon ñooñu ñooy Sénégal comme lu yaatu la liggéey bi lu am maanaa la lu am solo la waaye liggéey bi du liggéeyu kenn nit ndax ministère bi yàlla def na ne ministère bu ñu wax ministère transversal yeneen ministères yëpp ku ci ne am nga loo xam ne yaa nga ko yor te loo xam ne ci artisanat la bokk loolu moo tax tey mbir mi ku koy liggéey du xalaat nekk yow rek yaa koy def da koy àgg ak say mbokk ñu booloo ndokk nekk benn àndandoo liggéey solidarité gouvernementale solidarité boobu nag moom moo ñuy permettre résultats yi nga xam ne président bëgg na ko ci secteur bi incha allah ñu mën koo am ci jàmm ak teraanga merci beaucoup